ไปเล waaw corona ba day ah delluwul ginnaaw de déedéet 24 heures yéene kaa ne ñaar fukki doomu aadama ak juróom de ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la 1329 cas ci ñaari fanu yàlla laa la wax critique yéene kaa ne delta ba day waaw dafay bawul sax nag ñi nga xam ne dañoo juddoogul nekk seeni biiru ndey allahu akbar la ilaha illallah dama ne la gis nga delta boobee waaw soxna yi nga xam ne kon dañoo ëmb toll ci ñaar fukki semaine ak juróom-ñett wala fanweeri semaine ak ñaar dañ leen di césarienne de ah waaw waaw Moussa Sam yaram daaf mii directeur hôpital Dalal Jàmm day waaw ma ngay yëglu ak alerte alerté ci doomu jàngoro ji nga xam ne day mi ngi ray doom yu juddoogul docteur Mamadou Mansour Diouf ci l'info yéene kaay waaw ne centre de traitement des épidémies yi gën a ngand ci Sénégal gi lée weesuwuñu juróomi lal réa diggante dund ak dee waaw Cheikh Tako Diop mii directeur hôpital Fann ci fa nee na malade yi nga xam ne ñoom ñoo gën a bëri day ci réanimation gëlé ñaxawuñu sursaane dama ne la soxna yi nga xam ne dañoo ëmb laa la wax ñoom mbir la de ëpp na fukk césarienne dañoo am corona waaw dama ne la am na ci genn soxna soo xam ne ak bébé ba day dañoo mujj faatu allahu akbar xifil xool li fi Macky def ci libération yéen kaay waaw ña ngay askan wa day ngir ñu dem nag ñaxu ji malal jàllo picc ak njaay bambay nee na umpul kenn ne mbas mi lée mi ngi rey doomu aadama yi laa la wax waaw kuréel gi nga xam ne Doro Gueye moo ko jiite day nee nañu ñi nga xam ne seen xam-xam daa màcculal jëm ci wàllu wér yaram nee na fi mu nekk nii moom amul garab benn garab daal moo fi nee mooy ñaxu rek ñaxu rek kon nag ñi ngi woo askan wi lée ñu dem ñaxu ji Soble ne benn million ci ay doomu aadama day ñaxagum nañ leen Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ci libération yi ni kay waaw nee na troisième vague bi lée am nañu yaakaar ne léegi mu jóge fi léegi mu jóge fi le quotidien yi ne kaa ne delta ba day daa dem ba hôpital dalal jàmm rek def fa kër toog fa professeur Ibrahima Niang ci tribune yi ne waaw nee xayma gi nga xam ne kon moom la ñuy wax ci ñuy dee ci corona gi waaw xayma la de waaye wallaay bu ñu leen joxoon vrai chiffre yi li am dëgg ah loxo dar gémmeñ laa la wax l'observateur ne vacances su gouvernement bi corona ga waaw Macky Sall plan bi mu tegoon ngir liggéey corona gi da koo renversé yëkkati ko ba ci kaw daan ko laa la wax maar day taali Seydou Gueye porte parole waaw waaye nee na am na yenn ci ay ministres yoo xam ne saa bu ko laajee rek ñu profité nooyi tuuti maanaam noppalu terminé yéene kaay ne gis nga Sénégal ni mu yoree wàllu mbas mi xas nañ leen lu mel ni xamee parce nag yoreen ngoo xam ne yow ci wàllum mbumbaay xumbaay rumbaay wàllum folklore rek ak politiser a que nii laa la wax arritali déet waaye Mamour Mamour Cissé ne maa la wax li la yenn ci ay tradipraticiens yoo xam ne yow ay bandi yu la ñu Mamour Cissé ne màggal Touba gi nag xam ne ñaxoo waroo teg sa tànk kon ca Touba googee eh waay Samba eh waay Samba te gis ngeen docteur Babacar Niamile bu doon Europe la dàq nañ ko eh waay Samba eh waay Samba l'observateur ne gis nga diggante ministère santé ak docteur Babacar Niang waaw moi je t'aime non plus la de seen xiiroo ngaayoo gii dama ne du tey 24 heures yéene kaa ne Sénégal moom boo bëggee dégg par parlo parparloo rek yorinu parparloo muy ci ëtt politique beeg estor beeg njàng meeg njàngale meeg ak yeneen ak yeneen sax wàllum kalaa rek looloo am ci yenn service de ak diggante ni teg nit ña dañ leen di jënd te gis nga ginnaaw événement yi fi amoon ci weeru février ak mars 2021 manifestation yi waaw Sénégal jaar tuub jël yorinam goo gay te ko ci wàllum siraatal mustaqim na raa yi jub sellal ko dugal ci ngëm-ngëm waaye dara furaas daal di xideen laa wax Sénégal police nationale ak ay député fonctionnaire de qualité yu baax moom la askan wi wër de Dakar Times te mais xoolal ma wàllum ger gi lé ak rapportu Afrobaromètre ger gi tey la gën a nekk fii ci Sénégal laa la wax boobu benn ñaareel ba nag mooy rapport yi dañ naan ba njariñ la am kilifa yi soxlawuñ ko sax ngir xeex jàngoro ji nga xam ne kon moom la ñuy wooyee ger di wàllum corruption l'info yéene kaa ne mais xoolal ma Macky Sall mi ne woon day joxe fanweeri milliards waaw Cheikh Mbaw ko si def nee na mënuñoo nekk ci contexte bu ñu nekk ni lée ngay teg programme bi lée dama ne lii mënta ne Moustapha Diakhaté ne dix milliards ngir solal élèves yi lée ay uniforme loolu provocation la Ibrahima Mbaye inspecteur à la retraite nee na ndaataatal ak gundaa naat ak noos di bambulaa gii laa mënta gëm mën te ay problème yu garaaw ne fi yu gën a rëy te mu suñu koo saafara yéeni kaa gi ne élection locale ya day waaw waa parti démocratique sénégalais xam ne ñoo fi nekk di cari cari ñi naan maire lañ candidat lañu nee na leen waat xanaa déggoo leen li ma leen waxoon toog leen ngeen déglu parti bi coalition bi la Birahim Seck Forum Civil day ci yéene kaa waaw la muy naxarlu mooy am na ci ay maire yoo xam ni certificat de résidence yi ñu war a jox nit ñi ngir ñu dem bindu ji day am na ay maire yoo xam ne dañoo lànk ndaari tëdd ca suuf ne duñ ko signer askan wi ee eh waay Samba ee eh waay xam nañu maar contraire article li ñuy wax ci code électoral bi de Ousmane Badiane pléni potentiaire Benno Bokk Yaakaar yi fi nekkoon 1982 ba amul dara loo xam ne soppeeku na ci laa la wax kon nag amul complot amul dara loo xam ne teg nañ ko ngir éliminer ay adversaire politique wala di leen écarter ci ay élection loolu amul dégg de dégg de Walf Fadjri ne gis nga élection locale yi di ñëw waaw opposition bi rek mbaa dee Maguette Sène directeur général ko du dey ci libération daanaka pare na màggeen seen yamu ca dee parce que waa ji nee na la ma fi bëggoon defar yëpp ba ma ñëwee ak léegi téeméer boo jël juróom fukk yëpp darkal la demee na ko tey libération yi ne kaa ne règlement de ba am ca jaxaay gale fàllu mbay ñaar fukki at benn day dañu koo dàq jam ko ay baaka mu daal di dee allahu akbar la ilaha illallah day dem na Ousmane Sémior Diouf daal di nay falu ci kuréel gi njaboote magistrat yi Sénégal Teliko day bi mu ñëw daanaka une vingtaine de millions dem lim fi bàyyi ëpp Vox Populi ne Augustin Senghor de ñëwati na Bougane Gueye Dany day ci tribune sox nee na Madi Touré dëgg la nga fédération sénégalaise bu football de waaye am nga ndam am nga sénégalais am nga seenu cofeel am nga seenu daal jàpp la direct news ne premier tigre de Fass Demba day wuy ji na boromam allahu ay magu Moustapha Gueye ba dem na yéeni kas yi Pape Jogoy Faye ne dama premier tigre de Fass Mbaye Gueye fekk na falang falaay balde la talentueuse animatrice bu groupe des médias waaw ci jaar-jaaram feebar bi daloon baatam bi lée keroog ba muy dajee bu gaan ngay dani ak keroog ba mu ñàkkee bàyyam allahu akbar alima ndion day waaw nee na pour man rek sama lépp naturel la ñaf man ak Cheikh Sarr nag famille la moom saareen Cheikh Sarr sopp ma am ci man sofeel bëgg ma léegi-léegi ma wax lu ma war ta wax ci rajo bi lée Cheikh Sarr def yëfu nandite camouflé vice versa <laughs> animateur u Zik FM yi day noo da ngeen a aay na kaar muy Cheikh Moustapha Vivio ak loo leen ay ay ay ay ay ay ay ay ay bu leen fàtte ne ci pétrole bi ngeen suul gaz du ko xeeñ te troisième mandat dañ ko rek boo paree ma ne la alaaji tëjal